pneu yi place nekkul ci biir géej gi place nekkul ci canalisation yi mais am na deuxième sens de vie boo xamante nii donc mën nañ ko ko jox moo waral lii ñu def ci école bi exemple la ci liggéey bi pour ki nga xamante ni da daan jël fukki pneu dem ci àll bi di ko taal di créer créer pollution boo xamante ni kenn xamut nu muy toll ci atmosphère bi nga ñëw ñu jàngal la gratuitement doo fay dara matériel bi koy dagg ak peinture beeg lépp ñoo la koy jox gratuite jàngal la formé la nga dem di defar léegi dootoo taal pono parce que fukki pono yi ngay taal pour mën a am benn kilo dina la permettre fukki pono yooyu nga mën ci am sa salon bu yaañ affaire yi difficile wul bo amé ben cutter gis nga ko li li gis nga ko ni pono bo bëgg dag mën nga ko dag amul ben difficulté gis nga ko ni ana ana pono bu ki bi so pono bi nii xaarmol la ni gis nga ko so pono bi ni soo ko ba pare dag ko donc ni nga koy def rek bo défé ni gis nga ni rek ngay def nga def nii nga dëgg ko gis nga boo ko dëggee da ngay jàpp fii gis nga ko commencé koo gis nga boo defee nii ba pare c'est facile amul amul amul benn coono gis nga ko gis nga da ngay am sa peau bu rafet gis nga ko mi ngi ni ana ana langue di nopp yi dem na léegi bo defé ni gis nga ko da ngay ñew rek bo tégué ni nga am pot de fleur bu la nexé bo jëmbaté garab ba paré dang ko ci depp ni jël grillage bi bo sampé ñetti fer rek jël grillage bi entouré ko mom moy modèle yi pono bi daf ñuy permettre tay ji manam garab bi tay d'ici 6 mois grain yi nga xamanteni ni ñu ngi koy def gis nga yaa ngi gis benn mi ngi genn ni manam garab bi tay war na jur fi ak ñetti wër yenen jurom benn garab parce que dañuy permettre xalé bi bi jangé ci école bi bu lekkee orange ñeu jëmbeut ko fi bu lekkee benn fruit bu am grain bu paré ñeu jëmbeut ko Pas parce que lolu chaque jour dañ koy arroser lolu bu saxé lolu lañuy dindi école bi day dem ba maanaam beneen école bu soxlaa sax école bi dakoy koy mën a may garab li ëpp ci liy salteel dëkk bi wala liy fàtt canalisation yi wala liy tax ñuy naan mbedd yi dafa salte plastique bi la ak goble yi donc ñu dugg ci combat boobu ba mëne ko gañe ko am ci loi boo xamante nii loi bu mucc ayib la donc comme loi bi ñëw na nag léegi li ñu des mooy li ñu doon wax ne Sénégal mën naa set ñu wane ko donc ci tànk yooyu la ñu nekk moo tax ñu taxawul programme bu tudd un million de pneus ak un million d'arbres nekkul ne ñun ñooy saxal un million garab yëpp mais képp koo xamante ni am nga yéene yëkkati sa garab may ñu ko dinañ ko def ci école comme nii wala ñu def ko ci jàkka wala ñu def ko ci église wala fépp foo xamante ni programme bi egg na fa parce que programme national la ñi ngi bëgg nag képp koo xamanteni ni bëgg nga jàpp ci projet bi ñi ngi lay ñaan garab te garab bi na doon garabu fruitier garab boo xamanteni ni day am njëriñ donc gis nga grillage yi xam nga grillage yi xaalis la jar feer yi xaalis la jar lépp tey jii finalement tey mën na doon loo xamanteni ni lu ñuy récupérer la mais pour wane rek ne Sénégal war nañoo yitteel setuk Sénégal ñëpp la war a yitteel rawatina moo tax ñu tuddee ko Sénégal propre waaw le temps de l'action wax tuuti. Jeff Lubari.